ñu utiliser ndox ko robinet bu ndaw bi kon jàpp nañ ne léegi nag immédiatement ñun li ñu wax SONES li ñu wax SDE mhm. dañ ko wax ne ko comme SONES li mu la jox yow pour nga distribuer ko doyul léegi ni ngay def nii la dañuy def ne bu am kenn koo xam ne di nga am 24 heures sur 24 ndox ñeneen ñi ñàkk ndox gisuñ ndox ndax looloo amoon am na am ñetti weer ndox gisuñ ndox am ñoo xam ne chaque jour dinañu am ndox ñu ñoo ñi nga xam ne ñi nga am chaque jour ndox nañ comp ci ñoom jox ñi nga xamante ne amuñ ndox mu mel ni daal délestage bu ñu ko. mu mel ni délestage ndax boo xoolee tey jii. 341 mhm. 000 moom la ñuy muy ñëw ci nit ñi ñi koy utiliser par jour. waxtu bi bu fekkee 10 pour cent rek nga ci dindi 34 000 mètres cubes di nga ko desale yoo xam ne di nga ko mën a ay parcelles jeneen ñi ñu mos donc loolu bokk na ci li nga xam ne. moo tax ba tey jii bëgg a xoj bëgg naa nga àddu également ci leneen muy conseil euh, des ministres bi ñu gis démb dégg nañu également ay tegtal yoo xamante ne tukkee na ci njiitu réew mi Macky Sall mhm. mi ngi wax conseil des ministres mi ngi wax sax conseil présidentiel ci wàllu ndox mi yow noo jàngatee loolu jàppal na ni euh, loolu daal xëy na euh, bés bu sottee lépp dina sotti ndax parce que nekk secteur bu ne la parce que man li ma jàpp mooy tant état bi jàppul ne ndox priorité la boo xam ne dañ ko war a jàpp comme temps de guerre dañu war a guerre ak ndox mi pour régler problème bi du sotti parce que mënoo rek chaque chaque année nga dugal benn 80 euh, milliards wala 30 milliards pour ndox mi régler su ko defee su déwén jéegaa boo toogee trois ans rek ndox mi dépassé waat donc su fekkee ne état bi jël na li nga xam ne moom mooy ndox mi jàpp ko priorité national ñu def ci conseil présidentiel ñu génnee xaalis nag parce que xaalis moo ko yore ndax tey ji état bi moom moo war a financé liy mhm. pompe ndox bi di ko muucu di ko jox ki koy distribuer muy SDE pour mu mu ko mais soo joxul ndox SDE du distribuer dara lu jëm ci SDE sax ñu ngi wax euh, tey ji ñetti kër yoo xamante ni jox nañu ne kenn dana ci yor ndox mi euh, jongante la xëy na lay doon boobaa mhm. kan la nguur gi tànn SDE ñu fi nekkoon nekk fi ba tey Veolia Suez yore nu ndox mi ndax SDE da ciy tële wala lan la lan mooy solution. lii de ndox moo amul. état moom mooy muutu ndox mi tànn la yow ne la am ndox maa ngi nii séddaleel ma ko. léegi mais bu la joxee lu tuuti. munoo munoo ko matal. tey bi tey ji bu ñu bu ñu demee bay dégg yeneen kër yoo xamante ne xëy na ëllëg mën nañoo yore ndox mi ndax nguur gi dafa am te confiance SDE wala. waaw na xam nga nguur moom chaque fois day jéem a seet nu mu amélioré mais en tout cas ñun consommateurs yi ni gisee mooy ne gestion bi nga xam ne parce que xam nga SONES fi nekkoon bu am ñaari ëpp muy état bi fi SONES jógee SDE ñëw gis nañ tane bu baa bu rëy SDE dem na ba sax ay màkk di ko oo muy gérer seen ndox kon mun nañ liggéey parce que ku dem ba màkk di la oo màkk nga xam ne c'est la rencontre internationale dafa war dooleel SDE man ci sama gis e yi nit ñuy déglu di bàyyi xel ci li ñuy def te benn ma jox la benn exemple société yi nga xamante ni ñooy société nationale yiy def affaire service public SDE moo njëkk di taaj